li ma dégg nga wax ko xale ya démb nii bu nit ñi wuññeentee néew dootul dugg bàmmeel ah ma dégg ko mu wax ko bu nit ñu wëññeente nit dootul dugg bàmmeel parce que kenn du am ku la ku la suul ndax ku ne bon ngay doon ah moo tax bàyyi ci xel baax na waaw bàyyi ci xel baax na wallahi bàyyi ci xel baax na tabaar